mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk jullit yu tedd yi rawatina sunu mbokk talibe yi bu ngeen gisee toogaay bii ci kanamu sang bu tedd bii di cheikh Mahamadul Basir xalifatu cheikh Ibrahima Fati borom daarul moxti xam ni nag ñi ngi waajalati bis bu mag bis bu màgg lool ci lislaam waaye bis bu màgg lool ci yoonu murit muy bisu màggal ak fàttaliku a cheikh ibrahima fati borom daarul moxti loxo ndeyjooru sëriñ Tuubaa cheikh ahmadou bamba xaadimu rasul muy fukki fan ak juróom ci weeru saxbaan ni ki 8 wala 9 mars yamook fukki fan ak juróom ci weeru saxbaan ginnaaw ba mu ci amee ndigalul ki fi nekkal sëriñ Tuubaa cheikh mahamadoul bamba xaadim rasul muy cheikh mahamadoul muntaxa yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ren di 79e édition bi fi a cheikh ibrahima fati borom daaru moxti jugee ak léegi yi noo ngi leen di jiital ci ñëpp nag sëriñ Muntaxa Mbàkke mi nga xam ne mooy xalifatu général des mourides di salaat sunu taalibe ak di fas yéene aw ci ndigalam na xam ne na sunu baay awe woon ci ndigalal sëriñ bi amatul sax waruñ ci wax dara waaye nag bu fekkee da nga ne euh, da woote dara ñëpp yëg ko àdduna bépp yëg ko faaw ñu dégg sa kàddu nga wax ne ko am ku la waxal koo xam ne ci la ngay def moo la ko dàq fop ajowut waxat waaye nag teewul euh, euh, loolu rekk tax ñuy wax ndax se borom daar mi nga xam ne mooy borom bis bi euh, daf des sëñ Touba dafa waxoon ci moom loo am ne li ñaari baat rek la yoo xam ni yi mën nañ caa daanaka xaw naa doy ci bépp barab boo xam ne yaa ngi fa toog di wax lu jëm ci moom ceer mi nga xam ne mus la tàq mus la mus la man loolu sëñ bi boo dee seet euh, téere yi ba kàggu yi daj ak euh, bibliothèque yi kenn mënu ko am ci sëñ bi ba nag loolu it moom nu yëgal leen ko nu bëgg loolee nag nu sax ci rek euh, nde ndax sëñ Abdou daf Abdul Xudoos dafa waxoon ne Eh, moom nëbbuwul bañ di ko feeñal eh, eh, suufewul bañ di ko yëkkati man nag daanaka jëru ko nit de sa mënut ñàkk wax ci bisam rek loolu nag moo ci dal waaye da ngeen xam ne li ñu war a wax lépp wax nañ ko sëñ Basiiru mi moo koy waxal dana ko wax na mu ko war a waxe sant naa leen maa ngi ñaan sëñ Touba ci barkeem ak barkeem borom Daaru Muxti yàlla defal nu li ngeen bëgg lépp àdduna àllaaxira it mu defal nu liñ bëgg lépp ndax mën na ko magasin yi àdduna ak àllaaxira yëpp mu ci loxol yàlla te doyu ko dara lam yelit wala nu yatat wala mu yekkuloo ko fan aat ban nanu ci jox ban doyal rek te yaakaar naa danu ci jox asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen bokk yi fi daje yëpp sëriñ bi ñu ngi lay nuyu te di la sant te di la gërëm tey feddalu sunu taalibe bi ci yow boo wootee it ñëpp dana wuy si ndax njëriñul nit ñi rek nga ama jëmi màggal gi nag man li ma ci wax mi ngi jëm ci biir dëkk bi ma dénk waa dëkk bi lay waxal dama bëgg ñu buub mbedd yi buub néeg yi yaatal gan ñi dalal leen teral leen ba màggal gi jàll te fuñ fi gis luy jubadi it ñu yëgle ko ndax màggal gi munta ànd ak jubadi munta ànd ak def lu dul yoon borom dëkk bi bëgg ko woon sëñ Moda Balla bëgg ko woon ñi fi jaar ñëpp bëgguñu ko woon di wax waa safoor si na leen bu leen yokk paas yi bu leen bundu xataal nit ñi bu leen xatal nit ñi yéen commerçant yi bu kenn yokk prix bi amuñu lu ëpp bis bii ndax bis bii ci la Ceerno gisee woon ak Sëriñ Tuubaa mu gàttandu ko ca Ndar mu ne ko li ma wuti woon lépp am naa ko waaw Ceerno ne ko li nga bàyyi loon dara yàquwu ci loolee muy bis muy muy mbégte moo xam ne mii noonu la ko sëñ Fallu waxee ne bis boobu mooy bisu mbégte kon nañ ko def màggal gi di ñaan it taalibe yi yéen ñëpp yal na leen yàlla dimbale ba li ngeen bëgg am lépp ci bis bi ngeen am ko ba xeebal yi doy sëkk te du ngeen ci sonn. mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen nuyoo ci turu sëriñ bi sëriñ Bassirou Anta Niang Mbacké mi nga xam ne moom la ñu toog ci wetam ci wetu sëriñ Khalid ak mbokk yi nga xam ne ñoom lañu àndal ñoom ñëpp sëriñ bi ñuy ñaan yàlla sunu boroom jataay bi. nga yàgg koo jiite ànd ko wér ndax gëm naa ne ñu bare bari ci ñi fi teew de ñëpp yéene nañ la loolu ñaanal nañ la ko. bisub sëriñ Touba ak borom Darou Mouhty dama ko faral di seetlu ne dañ koy defee Darou Mouhty waaye murit yëpp ko bokk ndax sëriñ tuuba ak borom Darou Mouhty la kon ñëpp ko bokk waaye nag fii la ko yàlla jagleel muy Darou Mouhty sëriñ bi nag yëkkati kàddoom ngir képp koo xam ne eh, borom daaru Mouhty. mooy sa digganteeg Serigne Touba bis bi moom dañ la koy fàttali te di la woo di la jox ndigalul nga taxawee ca na nga ca war a taxawee ñeneen ña nga xam ne nag dañoo bokk ak ñoom yoonu Serigne Touba bi wala ñu bokk ñoom diine ji wala ñu bokk ñoom réew mi képp koo ci xam ne mën ngaa ñëw ànd ak Serigne bi tab ballu lu ci ci nga xam ne mooy xéewal yi fi am loola moom sëriñ bi yéene na ko ñëpp ci sakku ci tuyaaba ci diggante sëriñ Touba ak borom Darou Mouhty lañ doon lañ nekkoon ñu dundal ko mbégte moomu sëriñ Cheikh Abdou Faye tudd léegi te xam ne moom la sëriñ Mahmadul Fadil waxoon mbégte moom it sax ci xol yi ñëpp ba mu dellu siwaat waxtu wu rek mu sax fa muy lam ko waxoon it ci lettre ba ba mu ko joxee na ko da nga da dëkk bi tudde ko Darou Mouhty gasteen bi yu bashirukum ay sukuntum da ko wax ne ko fu ngeen fi mën a nekk ci biir dëkk kon nag mbégte moom itam sëriñ bi dañuy ñaan yàlla sunu borom waxtu bu nekk nu du ca nekk waaye nañu ànd koog lii nga wax léegi di wéy ci di daw tere loolu mooy li nga xam ne bokk na ci li koy mën a jàppandal sëriñ bi nag màggal gi mooy bis bi nga xam ne mooy bisub borom daaru mooti di bisub daaru mooti ci boppam looloo tax mu bëgg képp koo xam ne kii am nga cib cër ni mu ko waxee woon léegi nga jël ko ba mat sëkk ñi ñu bokkal réew mi ñu jël ko ba mat sëkk ñi ñu bokkal réew mi nag bokk na ci ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk réew mi ci biir ci biir waajtaayu màggal gi euh, sëriñ Khalid mi nga xam ne moom tam naka jëkk ci ndigalul sëriñ Mouhamadou Awa Balla la ko amee woon daan dem euh, Côte d'Ivoire di ko fa defe ji mm. te léegi yàlla dogal na fii mu toll Euh, sëriñ bi jox ko ndigal moom itam mu soppi doxaliin wa di ko defe fii ci wetam di ko defe ci biir dëkk bi waaye mu yebal nag sëriñ Ousmane doomam mu di ko defe ji foofu ca Côte d'Ivoire loolu itam noona rek la koy defaat moom itam moom sëriñ Khalid kon nañ xam ne ñoom ña nekk foofu ak ñu nekk fii ñëpp xam ne nam ko defe woon daaw rek noonu la koy noonu la koy defe sëriñ Ousmane moom moom la fay yebal leneen li ci des am na ci loo xam ne sëriñ Abdou Samad incha allah dina ci gën a duggaat ci euh, fàttali liggéeyu jumaa ji ak tolluwaay yi enxa balaa bisu màggal gee ñëw bu ko defee kan ku ci ne itam loola ca war ak la nga war a taxawee nga def ko beneen ba ca des moo di ne am na ci njaboot gi ñoo xam ne sëriñ bi da leen a joxoon ndigal ngir bis bi njëkk ci Shahbaan ñu war koo taxawee eh, ngir waajale ko màggalu daaru fàttali ko borom daaru muuti ci sëti borom daaru muuti ak ñi nga xam ne ñoom lañ koy àndal loolu itam kon buñ ci àggee na ngeen ko bàyyi xel bu baax a baax ñoom it danañ ci yëkkatiwaat seen i kaddu am na itam islahu daaree ni ñi ngi taxawu taxawaay boo ne am ci ndigalul bi dañoo fas yéene baas yu mag yooyu nga xam ne moom la ñu gis at mu nekk ñu di ko def fi ñu tuddee cérémonie officielle bi wala yu mel noonu nga xam mbooloo moo fay daje daje dañoo bëgg fas ko yéene wut wutal ko borom daaru muxti te te mu dëkk bi nekk ci loxol borom daaru muxti nga xam ne ku yilif jumaa ji yaa koy yilif loole nag eh, kenn ku ci ne la la ca war na nga ko def ñoom itam dinañ ci dellusiwaat ànd ak ñi war a àndal ngir yaatal ko ba nga xam ne kenn ku ci ne xam la la war ak la nga ca war a def nga def ko ci wàllu commission bi nga xam ne moo yore wàllu culture itam te xam-xam bi yaakaar naa ne ñoom itam ñu ngi waajal ay bis yoo xam ne eh, ay waxtaan lay doon ngir waajal màggal gi loolu lépp nag ñi ko yoree dinañ ci taxaw dinañ ci taxaw leneen la ca des rek moom moo di mboolem ñi nga xam ne ñooy takk der yu nekk ci kaw yoon wi nga xam ne mooy police ak gendarmerie ak douane rawatina douane suñu digganteeg Touba ni ko baaxoo di wax wala ci Rosso Mauritanie ak Rosso Sénégal yi nga xam ne ñoom ñoo ñu ci ëpp luñ cey sonle ñoo ñëpp douane ñi ñu bàyyi leen xel dinañ ca jaar fañ ca war a jaar sëriñ bi dina ko yëgal ñi mu ko war a yëgal dana ca wax ñam ca ñam ñam ca waaxa waxal waaye nag nañu ko wax ñëpp dégg ko ñu xam ne kat sëriñ bi lii la bëgg mooy bëgg na ñu jàppandal ñëpp seenu dikk ak seenu dellu te lépp loo xam ne lii ñu ngi ko def nga xam ne kat képp kuy jóg di yàlla soo ko jàppalee rek mën ngaa am ca la muy wuti te su boobaa lu yomb lay doon kon bisa ngi nii boo xam ne mooy bisu borom Daaru Muxti ak sëriñ Touba muy mbégte moo xam ne mbégte mënu koo gën a rëy kon sëriñ bi ñoo ngi ñaan yàlla sunu borom ni nga ko bëggee ak ni nga xam ne ni nga ni bëgg mu mel ni sunu borom yóbbu nu ca te lépp loo xam ne lii euh, sa def am nañ ko ci ci ay ñaan sunu borom nangul na ko boole na ko jullit yëpp boole ko réew mi yëpp te yàlla def jàmm ci biir réew mi def jàmm ci réew yi adduna bi yëpp rawatina réew jullit yi te yaakaar ne incha allah niñ ko bëggee danañ ko amee ndax nii ñu lay ñaanale ñaanale ko Serigne taxa mi fi nekkal Serigne Touba loolu defaluñ leen ko suñu bopp lañ koy defal ndax da ngeen suñu kaaraange da ngeen di sunu da ngeen di sunuy ndam sa liggéey bopp bii tam nga xam ne mooy jumaay borom Darou Mouhty ji mbubu mi nga koy sololaat nga xam ne tàmbalee nañ ko nan ñaan yàlla sunu borom mu àgg ba nga xam ne euh, jël nga caabi yi ñu ànd koog yow julli ko ca na nga xam ne nan nga ko bëggee ba sosaat leneen fàttali la ak xam le ne bis ngi nii boo xam ne bis bu mës bis mënu koo gën a rëy ci yoonu murit ndax Serigne Touba ak borom Daaru Mooti na nga xam ne eh, sëriñ bi junj junj na ko léegi mos ta taqale koog moom mos la moom di përëgum day jooram ñu dem ba am juróom-ñaari at yoo xam ne gise wuñu bis ba njëkkee gise yaakaar naa mbégte moomee nag loolu kenn ko xam ne pas-pas ak gëm-gëm mi ngi ci yow war nga caa bay sew làcc bu baax a baax te loolu mooy dikk ànd kook sëriñ bi taxawee ca na nga ca war a taxawe sëriñ bi nag mboolem li nga xam ne euh, ñi ngi koy def ci bis bi ci xasiiday sëriñ Tuubaa yi ci ci ci euh, salaatu ala nabi ak lépp loo xam ne lii luy mën a jariñ doomu aadama la ci tayam ak ëllëg loola moom sëñ bi santaane ko waaye nag da caa jiital nag daaray alxuraan yi nga xam ne tàmbalee ci péncum boppam mii ci bayti ak euh, Touba ak Njaareem ak mboolem dëkk yi borom Daaru Mooti yëpp yaari Daaru Manaan yi Daaru Koso ak yeneen dëkk yi nga xam ne dañu ajuwaat ci biir Daaru Mooti ak fu daara alxuraan nekk ba ci sunu bokk fa Fass Touré sëriñ Abdoul Aziz ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk ci tund bi yëpp waxuma laa nag Euh, ñu nekk ci réew mi yëpp ndax borom daaru mooti moom borom daaru mooti ñëpp la borom daar sëriñ tubaa sëriñ tubaam ñëpp la te ñoom ñaar ñoo tax ñu di ko def te nag gis nga bis yi moom lu coow li bari bari bari ngëneel a ngi ci yoo xam ne ki koy wax kiy wax leneen da koo xamul rek waaye ngëneel yi ci nekk ku ko xam dëgg-dëgg doo ko jàmbat ndax fekke mooy moo waral loolu kon nag dañuy ñaan yàlla moom mi nga xam ne may na nu fekk ko di ko woote nu dellu ko fekkewaat te yàgg suñu kanam ñu def ko ci ñu def ko ci sa te mboolem li nga xam ne mboolem ñi nga xam ne dañ ko fekke woon te fekke waatuñu suñu borom yërëm leen te jéggal leen nangul leen seen i jëf te mboolem ñi ñi gën a jege ak ñi gën a sori ñëpp nag te kattan kenn ku ci ne koo tane koo mën a dimbali ku nekk rikk waaye na nga ko dimbali ndax la nga koy dimbali loole lépp ci màggal gi lay dellu dend ak kenn koo xam ne kii wóor na yow man nga ba mënaale keneen ba noppi te dimbali ko loolu bokk bokku ci loolu nañ ko nañ ko nañ ko def ab yóbbal yóbbaale ko kenn ku nekk ka nga mën a dimbali ci sa wet dimbali ko te sëriñ bi tax boo legee di nga xam ne defoon nga jëf ju baax te loolu moom bokk na ci luy jagal bis bi kon nag sëriñ bi bokk yaa ngi ni ñoom ñëpp seen xol sedd na ñoom ñëpp seen yaakaar gën naa dëggu sa jataay bi ak li nga wax léegi yóbbaale na ko lépp kon yàlla na ko yàlla nangul te yàlla may noonu fekk ko déwén yu bëree bëri te mbooleem luñ ci def lu nekk lañ ca jublu woon nu am ko ci ci darajey sëriñ bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñi ngi ñaan yàlla sunu borom mu yóbbu nu ci bis boobu war a doon màggalu daarul moxti fukki fan ak juróom ci weeru sax ban di wara doon la sept wala le 8 mars incha allahu rabbi ci atum 2023 jox na ndigal gi yëpp ñu maase dox jëm ca bis ba benn fan kuréelu Saxbaan danañu tàmbali durus xasaayit jàng alxuraan salaatu ala nabi fii ci daarul moxti ba keroog ñu yàgg ca bis ba le 28 février février incha allahu rabbi fédération islaahu daare ni danañu buub dëkk bi ak li ko wër ba mu set wecc ba bu ñu àggee ca bis ba fu waay yegg si man faa julli man faa jàng alxuraan man faa jàng xasaayit lépp ci ndigalu sëriñ bi bis ba ngoog ñi ngi ñaanal Cheikh Mahamadoul Basir mu yàgg koo woote yàggoo feggoog rakam ju baax ji Cheikh euh, Serigne Khalid ibnu euh, Cheikh ma Fati borom Daaru Moxti ak mboolem njabootu borom Daaru Moxti gépp ñi ngi woo ñëpp di séntu ñëpp di sant ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.